Lamine Bara Gaye di yëngu si politique si département de Mbacké si parti bii di APR nekkit directeur bu SNEIPS banqas boobu nekk ci ministère de la santé et de l'action sociale moom di engagé wu na ci wàllu wu nu mel ngir jox ndam njiitu réew mi rawat na ci élection yu nu jëm di local yi naka noonu ginnaaw bi mu njëkkee amale réunion d'information ci ay bés yële weesu dajale woon kàngamu parti bi semaine bi si tegu ubbi na permanence ba tey tamit si même dynamique boobu naka samedi bi yemook ñaar fukki fan ak ñeent mi ngi doon amal tournée si kilifa diine yi rawat na si njabootu Serigne Fallou fii nga xamante ni fii la jokk moom Bara Gaye mi ngi njëkki Touba ndigal Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou Serigne bi may ko audience ci lu tolloog simili yu bari ñu waxtaan mu biral ko taxawaay bi mu am si bile parti ak fu mu bëgg àgg ak tamit mbëbëtam ngir département bi sëñ bi rafetlu ko ko ñaanal ko jox ko rendez-vous si ay bés yi di ñëw ñu mën tase faneen waxtaane ko si biir waaye nag yemul foofu ñëwaat na si kër sëñ Abdou Karim Mbacke fii tamit ñu déroulé ko tapis rouge sëriñ bi may ko audience bu yaatu ñu waxtaan sëñ Abdou Karim rafetlu taxawaayu Bara Gaye mii ñaanal ko moom it si lépp luy ay projet am étape bu mujj bi mooy kër sëriñ Fallou Mbacke si résidence bi doon seet si ki nga xamante ni mooy xalifa bii di sëriñ Abo Mbacke Falilou amal na fa nag déclaration jëm si taxawaay bi mu am si élection yi di ñëw moom damay déglu rek signalu président en tout cas euh, sol na takk naa sumay may jaaj war naa ci fas wi damay xaar départ bi suma président ak coalition bi ne ma baara yow la ñu wóolu ci commune u Mbacké pare naa tey pour porté couleur yi am ci ndam bu ñu ne ma ci conseil départemental bi lañ la wóolu également pare naa ci waaye mbir mi moom jàpp naa ne li ñu liggéey ak waa Mbacké dégg ko ak xam ko ah néew ñu day def nañu lépp waaye jàpp naa ne tey jii pour coalition Benno Bokk Yaakaar gagné département Mbacké yàpp naa ni bu fekkee ne am na fas wu ñu war a ngemb dëgg dooleel ko fas woowu Bara Gaye la tudd. li ko itteel bokk na si moom Bara Gaye ndamal njiitu réew mi jàpp na ni si lay dox si lay wax te nag dina def ba loolee matérialisé wu si département bi rawat na si commune bu mbakkee yi. meilleure solution bi mooy coalition Benno Bokk Yaakaar bi président Macky Sall ak yeneen parti alliés jiite ñu fexe ba ñu coalition boobu gagné. communes yi nekk ci département Mbacké lépp man Bara Gaye ci loolu laay dox ah képp kuy responsable ci département bi soit taal naa sama oto dem ba sa kër waxtaan ak yow wala woo naa la téléphone maire yi ci département bi tamit maire yu ci bëri seeti naa leen wax naa ak ñoom waaye nag Touba ak Mbacké nag dafa am borom muy kilifa diine yi. tournée bi yemul foofu ba tey dina dem seeti kilifa diine yi nekk Mbacké Mbacké xewar Mbacké dimb daaw salaam. ak yeneen penc yi maa nga ca yoon moom Bara Gaye di poser ay actes ci dynamique unitaire waaye tamit victoire au soir du 23 janvier 2022 ci élection locale yooyu ñuy xaar